marche bi lan moo ko sabab mooy journée de la femme bu njëkk ak euh, dimbale jigéen ñi ak ñun jigéen ñi dañoo wane suñ bopp wan fu góor nekk parité bi parité bi ñu def fu góor nekk jigéen nañ ca wet ga te ñun jigéen ñi léegi mën naa ne benn jigéen yaa fu sut ndax bu njëkk ñi ngi doon nekk ci tool yi ñii nekk ci bojj yi jigéen ñaa ngi ci village yi ñëpp àndandoo di xeex le 8 mars muy journée de la femme di journée boo xam ne moom lañ jagleel jigéen ñi te buñ naan jigéen te buñ naan jigéen mën naa ne mooy àdduna ci gàtt waaye ñu gën ñoo joxati suñu gëdda te xam ne ñun ay jigéen lañ te jigéen ñi ñoo jur tey kilifa yi ñoo jur te ñooy ñun jigéen ñi ñoo yóbbu xale yi. école ñooy jàngal xale yi alxuraan ñun jigéen ñi ñoo ne ci kër yi ñooy bégal tamit góor ñi. yërmande yërmande moom lañ bëgg ñu yërëm ñu nañ yërëm jigéen ñi. gën ñoo jàppale gën ñoo ñaaxal suñu borom kër yi nga xam ne ñoo nit ñu ngi liggéey am na ci ñoo xam ne seeni borom kër liggéey moo waral ñun ñuy xeex loolu ba def social looloo indi social bi ñuy def. ñu am benn euh, fondation benn partenaire bu nekk Amérique partenaire boobu moo créé fondation Afrique Vision Internationale ñu koy wax ab sa giro madame mm-hmm. moo indi social boo xam ne pour di ko jàppale jigéen ñi gisuñ ci suñu bopp ci benn financement su su waa nag ñun waa du groupement du dara

ndax maay présidente des femmes internationales